auzubillahi mina shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim barke borom Tuuba kon man la Serigne Mbacké Thioune di jëriñ ifsar xe Daaru Xudoos di àddoo fii ci kër Cheikh Khadim mi nga xam ne moo nekk si héliport di fukki fan ak juróom-ñaar si weeru safar atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn 1446 dëppoo 2024 yàlla def nag tey jii mu doon cérémonie boo xam ne baaxoon nañ ko def si fukki fan ak juróom-ñaar si weer safar di fi dajal mbooleem ñi nga xam ne mooy gan ñi nga xam ne gan sëñ Tuubaa lañ sa jóge woon gànnaar sëriñ Tuubaa nag ko ko tudd tudd gànnaar xam ne relation la boo xam ne bu yàgg la diggante sëriñ Tuubaa ak waa gànnaar mu doon gan yoo xam ne nag yu sëriñ bi fonk la ba am na at moo xam ne sax kenn koo xam ne bokkoon na ci yi nga xam ne baayam moo jàngaloon mun Muntaxa ba mu fay nekk ñëw na fii nekk ci kër gi ñu ber ko fi kon mel na ne diggante sëñ Tuubaa gànnaar daal lu yàgg la kon dégg nañ seere yi nga xam ne waa Mauritanie yàgg nañ ko seere sëñ Tuubaa yàlla def nag kon ñu dajale leen fii ñoom at mu jot fii lañ fii lañuy dal fukki fan ak juróom-ñaar ak safar ñu def cérémonie bi mel nii bernde leen waxtaan ci li nga xam ne moom mooy sëriñ bi waxtaan ci màggal gi Cheikh Bass mi nga xam ne moo yor kàddu yoonu murit doon ki nga xam ne mooy président commission màggal gi it moom it ñëw fii ci bis bi at mu nekk noonu lay def yu sarxe Daaru Xudoos nag yàlla defit uh, mu yor liggéey boobu ay at yu yàgg a yàgg yaakaar naa baba bu ma juumalu war naa ëpp fukki at ak juróom 2011 uh, la kon ba léegi kon kon kon kon kon ku ne xam ne ne yàgg na 2011 ba léegi lañ ko tàmbale tàmbale ko si condition yoo xam ne yu xaw noon metti la ndax diggante àll ya léeg-léeg ay kër yoo xam ne ñu doon luwee la nekk fa fu ñu nekk fa ba yàlla def nag tey ji lépp concentré aussi benn kër goo xam ne kër Sëñ Tuubaa la fii nii si héliport nga xam ne lépp fi la dajee kon loolu tawféex la goo xam ne bu si am la nga xam ne Cheikh Baba mi moo fi représenté Hizbut Tarqiyyah Darou Khoudoss ci fi xam ne moom mooy moom mooy bis bi loolu rek faaw ñu sant bu baax a baax sëñ Bass mi nga xam ne mooy président mi nga xam ne mooy président commission màggal gi ak ñi nga xam ne it ñoom ñooy jëwriñu relation bi nga xam ne fa bokk muy relation extérieure nga xam ne jëriñ ji sëñ Cheikhouna la waaye ñu gën a féetee ak sëñ Mourtala Bousso ak sëñ Mamor ak sëñ Modou Xaban Mbacké ñi xam ne daanaka ñoo gën a ànd ak ñun fii si liggéey bi ñu yàgg koo def ay ati ati ati ati ati at kon liggéey la boo xam ne bu jotee it euh, dañ fexe ba ñi nga xam ne ñooy waa bitim réew di membre yi xam ne Hizbut Tarqiyyah lañ nekk te féete si ñu bari si ñoom dañ leen woo ñëw fekk ko tey jiit it daanaka délégation bi nekk suñu gannaaw ñëpp ay jëwriñ sëlin nga fi jëwriñ ay jëwriñ yëpp nga fi nekk jëwriñ yoo xam ne jëwriñ daara lan jëwriñ yoo xam ne jëwriñ bitim réew lañ ak ay kilifa yoo xam ne ñoom ñoo fi daje yor si ay commission yor liggéey bi kon di sant bu baax baax a baax ci li nga xam ne moom mooy jotaay tey bi yàlla def na it euh, premier état bi jeex na ñi xaar ni sëñ Bas mu nga xam ne moo fi yor kaddu sëñ Tuubaa di président commission bi yit bu ñëwee incha allah ñu siyaare ko. day léeg-léeg bu ndax daanaka buñ delluwaat si sëriñ Saliou rek la waxoon mooy màggal gi euh, jaamu yàlla ak berne waaye daa am loo xam da ko sa tegoon ne dëgg-dëgg màggal nag nee na mooy berne ndax jaamu yàlla naka jekk ñu ngi si kon mel na ne dëgg dëggi màggalit mooy bernde gi kon ko am taw gannaaw loolu la sëñ bi wax ba mu ko santaane loolu wax dalee si ganaar ba si gileem kon wane na ne kon bernde tax ñuy wax ganaar bernde tax ñuy wax gileem donc sëñ Saliou leeral ne li mu si jiwlu mooy naw si lu si waay am xeeb lu am waaye ganaar ak gileem lan loolu si bernde la jëm kon bu ñu amee tawfeex nag gan yoo xam ne ganu sëñ Tuubaa lañ sëriñ bi fonk leen lool ñu am taw tawfeex it war leen a yoral seen bernde googu kon yaakaar naa day jàpp ne suñu màggal moom sëriñ bi nangu na ko ba noppi rek di ko sant bu baax a baax sëñ Tuubaa sëñ Muntaxaa mi xam ne moo fi nekkal sëñ Tuubaa yàlla gën ko fi yàggal dama gën a ànd ak wér rek sëñ Bass mi nga xam ne moo ko taxawal si wàllu ak mboolem waa commission relation extérieure ñu ànd liggéey bi ànd ko liggéey ay ati ati at te lépp nangul ñu ko kon sant lañuy def ak tawfeex gu rëy daal goo xam ne yëg nañ ko si li nga xam ne moom lañ liggéey sëñ Tuubaa déploiement bi nag moom c'est normal rawatina bis nga xam ne yaakaar naa sëñ Baba mi à partir de 14 safar daanaka moom moo ñu représenté si commission màggal gi sax nga xam ne séminaire yi nga xam ne moom lay def lépp dana ko fekkee di fa di jël rendre compte parce bu ñu si biir safar sax dana séminaire boo xam ne des na ko woote fii si héliport commission relation extérieure ànd ko ak mbooleem kër Sëñ Tuubaa yi xam ne ñooy dalal gan moo xam résidence Cheikhul Khadim yi xam ne moo nekk en face jumaa ak daaru Mannaar Mannaan ak li nga xam ne moom mooy héliport it ñëpp dañ daje ñu waxtaan ci biir màggal gi dëkk nasaraan yi euh, ñu ne ñoom ñëpp lañ leen doon wax ne bu ñëwee bis nañ daje ñoom ñëpp ñëw fii mboolem ni ma wax sànq it ay ay jëwriñu daara rek ñoo nekk si ginnaaw ñoo xam ne it daara lañ yor yoral ko Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos ñoom ñëpp it ñu euh, euh, mobiliser leen ñu ñëw fii daanaka fii la ñuy màggale bu weesoo activité yi nga xam ne moom la ñu war a def su penc ma moo xam a jàng ñëw waaye jëwriñ daara ñoo fi nekk ñoo xam ne kon responsable yu mag la loolu xam ne it fonkal gi nga xam ne moom lañ fonk yoon wi yaatu na ñi ko mën a def bari na waaye bu fekkee commission bi am na yaakaar si Serxe Daar Xudos ba yaakaar ne war nañ def la dénk leen ko kon dañoo jàpp ne war nañoo mobiliser mobilisation boo xam ne mat la rek ba liggéey bi daal liñ ñu xam ne moom la ñu si yaakaare ñu amee si lu koy njort kon sant rek la ñuy def si wàll woo